motax ñu jox tay en tant que ay citoyens am wàll ci réew mi bokku ci réew mi ñu ne danañu def doxu ñaxtu wax ba nga xamné autorité yi nga xamné ne ñoo géré lolu baye xel ñi nga xamné ñom ñoy commune nu Diamaguène Sicap ak Tivaouane jaksaw parce que mënuñu continuer à chaque fois di ñak suñuy bakan ci lo xamné vraiment tégul ci yoon parce que gis nañu ne tay pont yi fi nek dañ ko wara réhabiliter waat defaraat ko ba population bi bu ñuy rombu am fu ñu jaar mais en plus problème mu éclairage ci national numéro 1 bi dafa manqué té dañu soxla éclairage pour que nit ñi mëna am sécurité lolu nak ñu té interpeller interpellé état parce que mom mo géré responsabilité et le garant de la sécurité des populations quand donc état bi amna rôle bu am solo bu mu joué ci le ministre de l'Intérieur, muy ki nga le ministre des transports et infrastructure ñoo ñëpp ñu ngi leen di interpeller sur la situation actuelle mooy suñu autorités locales. yi seen seen patt pataaral bi parce que nous mënuñu comprendre yow ñu jox la nombre tànk fal la mais ça yo askan bi amee problème kenn du la dégg kenn qu'est-ce que loolu ñaaw na lan moo leen intéressé dem di nax askan bi di population pour l'élection. élection mais si problème est pour Askanbi, bi faut que jooy le leen mës a gis leen